alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifaad bifurud wa sunan sakartuhu lianna qad saahani liwatani bihi nafa ma anfani asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu del siwaat ak yéen ci 2297 xam naa nag ci waxtaanu démb wi ay mbokk intéressé wu ci rawatina suñu mbokkum daara paaleen bële ci Touba ñu gën a ñëw bu baax ci tomb boobu euh, kii ñuy soog a fal maanaam ni ñu ko fale luñ ci mën a jànge ak it ban yóbbal la ñuy teg ci loxoom moom ñi mu àndal waaye xam ngeen ni dañoo war a fàttali nit ñi ñu génne muurum koor ndax boroom xam-xam yi ñenn nit ñoom nee na dagan na bu korite gi à peu près desee ñaari fan mën nga koo génne ndax bokk na ci génne gi teel gee génne solo si ki ngay jox ceeb ah, mu war koo jaay jënd ca lam soxla wala mu war koo denc di ko jariñoo nga xëy lam nar ne lebi duutu ko lebi ndax dèjà am na dundub ay fan wala da koy jaay wutal ci doomam dàll wala tubéy moo tax kon doonte waragu la ndax weer wi feeñagul maay nga génne ko mbokk yi loolu lu mat a bàyyi xel la te mbokk mi ni ndax dañ koy jox imaam boo gisee ñenn ñi di ko jox imaam imaam dafa gën a xam ñu bari ñi ci koñ bi te ñàkk te mënuñoo laaj boo demee ñëw nañ ci moom sax ñëw nañ ci moom imaam yi da gis koo xay day toog këram euh, am problème mu trois mille francs mënu ko ñàkk tey jii bu ko amul dana ko lebi am ku yore këyitu ordonnance ñëw nii dafa ñëwoon ci jàkk ji ñu nu ko demal kër imaam waaw daa di wax wax joxe wax ju daw yaram wax joxe kenn mënu ci dara dara dara kon imaam xam na bu baax moom waaye yow boo xisee xam ni yàlla wax ni deeñ leen ko jox rekk ki néewle lool ki amul dara muy miskin ñii mën ngaa tàmbaleek ñoom te fekk ñu di ay jullit nga jox leen ko ci missaal bu la neexee euh, altine talaata nga génne asaka donte um ñi ëpp ñi ngi umoon euh, talaata waaye ñaari kori moom nañ ko séentu rek eh, nañ séentu ñaari kori rek ala kulli kon bu desee ñaari fan daal dagan na nga génne murum koor mi te nga génne ko Sénégal fi ñu toll li ëpp ci li ñu dundee moom nekkatul dugub moom di ceeb la léegi te léegi sama classe gi ñu ngi génne dugub ba léegi xanaa dugub ji dafa gën a yomb waaye wala dañ ko seetluwul waaw xam nga faaleen yi moom bu fekkee dugub dafa yomb lool ak jigéen yi walla boog dugub gën a yomb ceeb bi moom dañ koy baaxal ci dugub ji rek waaye fi ñu toll nii sore xam naa bu dee da ngaa tënku ci li téere yi jàngale fi ñu toll kon nañ ko génne ab ceeb mbokk yi ginnaaw ginnaaw ñu génne ko xaalis dagan na bopp bu ne lu ñu ko war a génneel bopp bu ne dégg bu dee ceeb bi boo ko génneelee mille francs moom baax na ndax ay borom xam gëstu nañ ci ba tënk ni daal ñaar téeméer bopp bu ne daal baax na ndax gis nañ ni Sénégal li ëpp ci li ñuy dunde mooy ceeb ceebu parfumé bii nga xam ni euh, ak ak ñeneen ñi dundee beneen ceeb bu mbay bi waaye daal ñaar téeméer daal boo ko génnee moom yow mën nga li yéesaloo bu dee nag li ñuy natt moom am na pot boo xam ne ñu ngi koy nattee nun ñi bin juddoo fi leen ko fekk pot boobu mi ngi fi ba léegi marché yi am nañ ko wala boog am na dëkk yoo xam ni ah, moom ña ngi fay yore pot booba Touba Gële gis naa ko fa ak yeneen dëkk yu mel ni Daaru Gaye ak yu mel noonu pot mbuurum koor la boobu nag manqué na ñaari kilo boo ko xoolee maanaam ñaari pot ngay nat mu soog tolloo ak mudd yi nga xam ne moom la yont bi doon euh, joxe mu mel ni am nañu wax ñaari kilo am ñu wax ñaari kilo yu manqué genn wàll liibar waaye am na ñaari kilo ak genn waa liibar wala ñaari kilo liibar bii ma leen wax nag bu dee mille francs yi moom ñaari kilo yi day teg kon bopp na mille francs ci génne muurum koor ndax euh, maa ngi fàttaliku rek am na vidéo boo xam ne man mi amal naa ko fële ci defe naa France la am ñoo xam ne dañ leen la jox muurum koor mais lañ koo génne sànni ko ci mbedd mi dama xamul bele la xaw ma lan Euh, ay saaku la yoo xam ni dañu ko sànni boole ak di xultu bu nag nit ñi moom dañoo yewul waaw dañoo yewul waaw mooy loolu moom doo ko gis fii ak loo mën a jox fii nit tudde ko muurum koor ak ci nag léegi mer ba di ko sànni ci mbedd mi teg saako ya foofu moom ak guñ foofu wax dëgg yàlla waaye kon kooku xam nga ni est-ce que bu ko wecc ko def ko ay euro jox ko ko da koy jël jëfandikoo ko waaw kon Abu Hanifa bokk na ci ñi waxal lu mel noonu ni dagan nag ñu uh, def ko li nga xam ni moom mooy xaalis te dañoo wax ci jamono yi yonent bi alayhi salaatu salaam defe naa mu aas ba mu demee di jëli uh, ba mu demee di yi uh, asaka ja ca fa yonent bi yóbbu woon mu dafa liggéey lislaam mu dem di jël jëli zakat boobu di leen yéen ginnaaw euh, ginnaaw yéen ay ay ràbbkat ngeen kon li ngeen di joxe wala ngeen joxe ko aw ñam yéen li ngeen li gën a lëng yéen ngeen di ko liggéey ngeen joxe ko ñu xayma ko wax nañ ne ba ba mu ko euh, lañ ko caa sant lool lool ndax booba waa Madine soxla nañ ko te ñoom mënuñoo ràbb kon Euh, nañ ko daal di euh, génne waaye jox ko ñi ñu ko war a jox ndax mbokk mi nii ndax dañ ko jox kurul ab jullit déedéet muslim nga koy jox muslim boo xam ni euh, dafa am lu néew ndeysaan te boole la ko munta laaj ku néew la daal moo xam mën naa laaj wala munta laaj ak koo xam ni miskin la amul dara ña cay topp soog kon li gën a gàtt mooy ñi ngay jox asakay at mii ngay génne na ko alxuraan lime ñooñu ngay jox sakaatul fitri denc incha allahu ci aay bi waaw mu ne lu tax ñu tudd ko sàkkaatul fitri waaw xam nga eh, zakat yaa ngi ko miinan ci asaka ji ngay génne ci at mi lii tamit xam nga ñoo bokk forme noo koy defee sa alal la boo ko amee sañoo koo bañ nga génne ko waaye nga joxe ko ngir yàlla waaye te xarruban mu doon ak jaamu yàlla waaw ñu tudd ko nag eh, zakat zakat nga xam ni eh, ginnaaw boo ko defee muy ak jaamu yàlla waaye sinkil gu muy sinkil alal ji ak defar gu muy defar koor ak defar gu muy defar sa bakkan ak sa roo ko am numu wa siyaadatu léeg-léeg ngay wax ni zaka saraaw isa nama wa bu mbay mi baaxee lool ah, mbay mi day eh, sikki na ren waaw am na yokk daal ci num daa mel te wax nañ ni eh, day bokk ci liy defar sa moral waaw sa jikko kii ko mën a génne te génnewu ko ñu ni dañuy aj kooram ba keroog mu koy génn kon lay mel ni ëpp naa waaj ndax eh, àdduna feebar ngi fi faatoo ngi fi lu ne ngi fi mooy boo ko mënee bu jotee rek def ko jaamu yàlla gone bu ñëwee rek bu la fekkul ci ngànt defal ndax lan sa bakkan bii sa bakkan nit jóg na jël ak satla dem ci wanoo ñëw di waaj aha njàpp ma sax àggul waaw nit faatoo na lu ne faatoo na lu ne waaw yàlla te kon kuy faatu sax nga faatu ci nekk ci biiru jaamu yàlla waaye loolu dañu koy fàttali léeg-léeg ndax euh, dañoo wax ni ci hadiisu ibnu Abi Waqaas moo wax ni yonent bi nee na euh, wa lan lan tunfiqa تبغي بها وجه الله إلا أجرت بها أتى ما تجعل في في امرأتك hadis la boo xam ni Buxaari nettali na ko da ko ni yow daal lépp loo xam ni dépensé nga ko sàkku ca jëmmi yàlla ji jubla jëmmi yàlla ji rek dinañ la fay doonte ne nee na ko li nga jox sa sa soxna mu di ko dunde di ko lekk sax lañ la koy fay euh, dund nañu ko sàkkaasu fitiri nag dax xam nga euh, fitiri moom mooy dog mooy mooy asaka yi buñ ne dog nañ weer wi feeñ na asaka yooyu daan nay war bokk na ci li tax ñu ko sàkkaasu fitiri waaye buñ demee ci Ibn Abbas lu mu waxoon ci euh, ay njariñam moom sàkkaatul fitiri muurum koor dafa wax ni Eh, ginnaaw buñ ko farataale ci atum ñaareel ma ci gàddaay gi ca Medine mu ne ah, farala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sàkkaatal fitri tuhuratan li saaimi min al laxwi wa rafasi wa tu'matan lil masakin fa man addaaha qabla salaati fa iya sakaatul maqbula waaye man addaaha baada salaati fa iya sadaqatun min sadaqatin boo demee ci awa daw awa daw diñ ca fekk wax jooju kon lu mat a def la nee na asakay murum koor ak laab la de day laabal eh, ñeel ki doon woor ci lan ci laxu ak rafasu leen ñëw ci ñaari baat yooyu bu baax ci lépp loo xam ni eh, ay neen la woon neen yooyee nag mbokk yi gis nga bu baree ci dundu nit yow mal xam nit ki day sànku dundam ci lu bari ndax neen neen yu bari yooyu léegi nag yooyu la lay jangal ba dut nekk ak neen kon waaye watu umatan lil masakin de waaye day baax nag ci ñi nga xam ni ñooy miskin yi kon nee na ku ko joxe avant julli yi ah nga asaka juñ nangu nag ku ko joxe nag li néglige ko ba ginnaaw buñ jullee joxe nga benn sarax ci saraxe yi te xam nga am sarax mbokk yi mën naa am ñu nangu ko mën naa am kenn du ko nangu loolu moo tax Euh, mu war a bàyyi xel lool waaw laxu wax lay doon joo xam ni euh, waxi neen la nga waxoon ko ci biir koor gi moom laxu xëy doo ci am tuyaaba mën nga ci am sax bàkkaar gis nga ko euh, rafasu tamit sorewuñu nga xam ne day nekk fashu minal kalaam wax ju bon lay doon wax ju ñaaw wala walla wala wala ay jëf yoo xam ni tamit gis nga ko xeeb nga ko lool fekk na booba moom bokk na ci yi nga xam ni ak neen lay doon yi nga xëy bàkkaar la gis nga ko teet boo koy joxe yaa ngi sant yàlla bu baax def nga ak cant gu rëy yëg gi am nga boroom sant na la nga woor ba koor gi jeex nga génne ko di ko jox ñi nga xam ni ñoom dañoo bëgg feetu ndax kat yàlla danoo may feet gu rëy bi nu defee jaamu yàlla gii di woor weeru lëm bët set yàlla mayat nu ganeen feet bu ñu defee aj gii ba ca fukkeelu fan ba muy tabaski muy ñaari iid yooyu ci lislaam waaw gis nga kon kon ah, ci liñ koy génnee waxal nañ ko léegi ay wirgo yu bari la ba atta boo demee ci réew moo xëy la fa ëpp lépp ñoom ndawal la ñuy dundee rek yàpp ñoom yàpp yàpp suba yàpp ngoon ñoom it ca la ñuy ca la ñuy ca la ñuy xayma lañ war a génn ñu génn ko ci waaw lañ war a génn ñu génn ko ci waaw xam nga abi Saïd al nee na euh, nu day daana génne zakatul fitri euh, an min taami aw chaan min shair aw ñam walla bele walla tàndarma euh, wala lii di euh, même raisin bu fekkee raisin sax la lay doon léegi nag réew mu ne ak gox bu ne dafa am seen ñam yu ñu xam yoo xam ne yii ngay fekk ci téere yi Sénégal xamul ñam yooyu moo tax ñu noonu nag li ëpp ci réew may dunde bu njëkk nag cereeg laax la ñuy euh, añe ak moom la ñuy reere daa ci ndékki sax aw ndékki ma ngi laa wax ndékki de su reer la léegi nag kon loolu euh, lu mat a bàyyi xel la kon ñoo ngi soon soññi ñëpp ñu génne ko li ma wax nag jox gi imaam moom euh, baax na waaye yow mi nga xam ne yaa koy joxe boo xamalee sa bopp ñoo xam ne ñii lay yaa leen gën a xam imaam sax te yittewoo nañ ko lool ndax am nañ problème lu ñuy euh, wute añub korité sax dis na ci ñoom su ko defee kooka nag nga jox ko ñetti bopp ak ñeenti bopp ak juróomi bopp sax lay gën nga wecc ko ko par ay téeméer di ko joxe par kenn par kenn waaye nga dimbali ci benn borom kër bu amul bay lebi bari bor lool loolu baax na de mu ni fi ma nekk ci réew mi ndax mën naa koo jox jullit yi nekk fii waaw mën nga ko jox jullit yi ne foofu de waaye asaka lay fa jullit yi gën a loroo fa la gën a baax boo nekkee foofu ci Amérique nga am ku la senegal Sénégal nga yónnee ko ko ni ko lii de mburum koor la seetal ñu ko yelloo foofu walla yooyu yaa xamal sa bopp ñoo xam ne ñii de doon say mbokk lañu te waroo leen a dundal nga nga yónnee leen ko day baax kan lañ ko war a génneel liir bi juddu euh, avant ñuy julli ji sax dañ ko koy génneel waaw ki nga xëy dañ ni weer wi feeñ na ba ca njël moom mu soog a faatu am na ñu ne dañ ko koy génneel am ñu ni déet ah, bala moo war xanaa dañoo julli ba bët set muy ci bis bi waaye ginnaaw wax nañu ni ñaar yooyu daal yow kon fexeel ba euh, euh, liir bi judd ci waxtu woowu nañ ko ko génneel euh, ki liggéey ci waxtu woowu nañ ko ko génneel rek ñi amul xel nag ah kay dañ leen di génneel mburum koor kon noo ngi yem foofu rek ba su ba ñu àggal ko incha allah asalaamaaleykum silmilan ala sihadi bi furudin wa sakartuhu li qad sahani li watani bihi nafa ma wa